bismillaahi rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu dul si waat ak yéen ci seen 1938 Taskiru Sabaax di gërëm mbokk yi ci nemmiku gi ak seet gi ci tawat ji waaye yàlla mi ngi koy wayefal bu baax a baax baax baax léegi rek maa ngi jot benn mbokk taaliba Cheikh muy seede seede yoo xam ni li muy seet li lépp lépp ci moom la nekk yàlla yàlla fayal nu ko fële ci Kër Masar lu tàmbaloon nag weeru Chaabaan ginnaaw bu ñëwee ci actualité yi nga xam ne mooy wax ji jóge ci internet bi jóge ci télé yi ak rajo yi surno yi muy bëgg euh, def ñu jàkkaarloo ñii chef religieux yi ak population bi wala ak politiciens yi wala militants yi te loola ñàkk am ak dégg xool li mu soon a jaar ci Sénégal ba ak si fii mu ak si tey moo ko waral kese waaye boo jàngatee li jaar ci Sénégal ba ak si fii lii lu ndaw lay doon dina doon lu rëy nag ndax ginnaaw euh, coow yi di jóge ci internet bi yàgg naa taalum réew kon ku ndóobeen rey sa maam boo séenee lu ñuul nga daw waaye mbokk yi jamono yi sëñ Ababacar si sëñ Fàllu Mbàkke radiyallaahu anhu ma di jàppale Senghor après bi sëñ Cheikh Tidiane si di taxawal parti am boobu bu leen fàtte mi ngi ko taxawalee fële ci Daaru Salaam Daaru ci biir Tuubaa bokk ñoom dafa am yu ñu tegoon fale fële ñu nga xam ni ñoo fi wuutoon mag ñi mën na mag ñi nag tàmbale ko ci Cheikh Ahmadou Bamba euh, Alaaji Malick Sy Cheikh Abdoulaye Niass ñeen fi wuutoon nag muy sëñ Babacar moomu moo ak sëñ Fàllu waaye ñoomit it seeni doom ak seeni sët taxawaay bi ñu amoon <coughs> ba ànd ak sëriñ Seex Eh, sëñ Mudu Mamoun sëñ Mudu Xabaan bu ma juumul ah, Ibrahima Niass ak yeneen kilifa kilifay diine sëñ Cheikh taxawal partem boobu waaye xam nga ni nguur moom buy xeex benn opposant na opposant bay def ba nguur du ko yàqal loolu day mel ni mënut nekk mën na ko bañ a arrêté nag muy jóge ko daanu jóge ko daanu waaye dina ko yàqal lu bari ndax doole jëpp jëpp jëpp nguur moo ko yor loolu moo tax ragal yàlla baax waaye boobaa opposant ba di jëme nit ñi ci yàlla di jëme nit ñi ci li gën a baax di leen moytundoo li gën a yées jaanam wàcc na réussir na ndax def na li yonte waxam ni man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu bi yadihi fa in fa in lam yastati fa bi lisaanihi ba addis ba jeex booy dindi munkar mooy njekkar njekk mooy lu baax njëkkar mooy safaan ba dindee kook loxo muy kàttan wala sa làmmeñ suñ seex nag booba loolu rek la gis ni li fi ne jëmul kër te wax na dëgg ki jëkka nekk njiitu réew dëgg la du woon jullit mag ñi ànd nañoo moom waaye gàkki gàkki diine yu bari moo nu ko teg code de bi mi ngi nii juróom-ñaar fukki point ak nangam bi mag ñoo ñu àndee ni d'accorduñ ko ci code de la famille bi ak kilifa yi kilifa yépp xoolatul ña ko jàppaloon ba mu toog dafa lànk da ko caa bàyyi te yooyu yëpp bu ci nekk day gàllankoor njabootu lislaam gi di àttewoo ci loo xam ne lii méngoowul ak li ñu war a àttewoo fexe ba def réew réew moo xam ni réew laïc lay doon ki am 97 pour cent ak ki am 3 pour cent yam ci ay àq ñaar ñooñu nag boo leen joxee ñu tolloo lay àq ki gën a néew la mooy ki gën a bari la bu boobaa waaw <coughs> loolu euh, nañ koy bàyyi xel bu baax jaajuwaat nañ ko fi sëñ Murtala ñoom bokk ci sëriñ Abdou Aziz Dabakh ñoom it point yooyu jamono jamonoy Abdou juuf waaye jàllul ba léegi dañ ko buux ci turaal yi après 2000 am nañu am nañu ko yëkkatiwaat waaye jàllul ba léegi mu mel ni dafa am point yoo xam ne ci constitution bi dañ koo ragal a laal waaye yi ci arrangé politicien moom bu toogee yu mu ci bëgg a laal daal koy laal daal koy dut baaraam mbokk yi kon wax ji kese rek mu yóbbu na ni jàngat li weesu xam ni ñi nga xam ne ñoo nu jox diine ji nu yor lu mu leen jaraloon lu mu leen jaraloon bëgg dem jàng lañ fii wasiya bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa joxoon Sàmba Law ba Njaay bi doon sàkku ci moom wasiya am ab am ndénkaan boo demee ci mbindum ñeneen mag ñi gis lañ wax ci position bi jullit war a am ci euh, boroom xam ma war a am ci digganteem ak état mag ñi booba dañ fay nekkoon di liggéey di dunde ak di jàng jàngale di yare sanc ay dëkk doy loolu leen yàlla jox la buur di tegee rek muy ay galak ah, bu ñëwee lañ ca man ñu def ko ba ñuy bind soldaar yi gis nga ko kër gu ne am nañu fa jóge am nañu bind kon naka jëkk fexe nañ ba doxal seenu cër ndax bi ñu gisee ni tubaab bi mu ñëwee kat mboolem ku doon jàmmarloog moom ci yor sa jaas ak sa paak sa fit ak sa yet ñi ëpp ci ñooñu faat nañ leen ci turu lislaam ñii ci turu ceddo gi ñii may wax nag ñoom ñi jël nag beneen beneen xarb boo xam ni xarbul fikr la boo xam ni dinañ xare te xare bi Eh, ñoom kenn du ci ànd ak mbooloo yow rek yaay jàmmarloog tubaab bi wala nga jaxasoo ak moom nekk moom di def la nga bëgg di ko réussir di ko réussir di ko réussir ba mu jural nu tey ji lii mu nu jural waaw am na ku ma eh, am na fu mu jëlee fu wér si lay maali si bañ ko laajee ñu ko dafa naa ndar la woon yow lan mooy sa arme mu génne kurusam ndeysaan ka xamul dara ree da koy jàpp waaye la course ga man sarde euh, combat mënu ko Hiroshima mënu ko ki mënu ko Nagasaki mënut a toj ab xol dugal ci ngëm leeruk suñu boroom mu gëm yàlla déedéet mënu ko mënu ko mënut a bëggloo nit sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam te kurus man na ko rawatina kan koo xam ne xam nga fa ngay jaar waaw léegi nag ñoom lañ tolloo la def nañ ko ba Sénégal wuute na ak réew yi africain yu bari ba tubaab yi waxal ko seen bopp ndax ba ñëwee wër ndoom ba mag ñi ba installé liñ installé gunduxaal sëriñ daara yi aj màkka ñu ñuy limite nit ñi teg sart yu diis ñëw ci bii fi ñuy jàngalee école école daara alxuraan yi ñu indi école yi français doo fay dara lépp ba tey ji université foo man di dem ña ngi fay yëkkati seen xasaayit yi waaye ña def ay daayira yoo xam ni ñi ngi soj kër këru këru diina yooyu damaa bëgg xam ne ñoom seen i bu buñ ci doon waxtaan tey jii seen réalisation ñoom euh, ñooñu may wax muy bokk ko tàmbalee ci ñi toll ak jamono Cheikh Ahmadou réalisation ñoom la leen ko may mooy ñi jiitu mooy maam ma aram maam ba joxu ba maam euh, maam nu mu tuddati Cheikh Omar Tall mujahidul akbar ñooñu ñoom it ñoo leen may ndëgër laay loolu wan leen yoon wi jàngal leen yar leen ci diine meññ leen ñu yor deret ji ak ngor ga ak ak ak ngër mi ga ngër mi nag moo jeex léegi ndax bu njëkk ah, ki dul jullit sax te nit ñu am fu ñu koy séentu bu xesee wax jeex na loolu moo faatoon xam naa jigéenu ndeer ña doon te bu doon ci lislaam du leen may ñu taal seen bopp waaye ak ngër mi moo leen ci ñoom ñu bari ñu faatu ñoo xam ni ah, Lat Joor ñu ngi lay nekk dañ dañam ak Sëñ benn barab Sëñ ko damaa bëgg nga bàyyi yow li ngay dab li ngay dabu ñëw nu ànd ma la mun ko mbàkkee man nga ko jubóo nga ak waaye mënatuma dëpp loolu nag amatul léegi amatul léegi waaw mbokk kon Ah, fexe ba nu bañ di sànni suñ jëf yu baax yii sa jëf yu baax nag moom mooy nit ku baax ngay teg ci moom ay kàddu la nga baax le yàlla da ko koy faye nu bañ di jëlal nit ñu bon ñi seen yu bon yi mooy ngay teg ci nit ku bon ay kàddu yaa ngi koy wàññi la ay ay mbon mbonam te léegi jumtuwaay yii muy internet bi da yomb dugal nit ci loolu moo tax taskir di ci avertir nit ñi di fàttali nit ñi ñu bàyyi xel yooyu nga xam ni na mën naa gàllankoor nit ki bu ñu ñëwee ci weer wii nag muy sabaan bi ñu tàmbali woon démb di fàttaliwaat boroom bor yi nañu ko fay vérifier sa sa waa kër yow mii ñi nga xam ñi nga miin surtout jigéen ñi mbaa fay nañu boru kooru daaw waaw ki daawul woor te mësoor na na laa di tàmbalee woor alaakul xaalin waaye du wooru nag daw liggéey du wooru nag sellal bu jàllee nga taqal du weer wu jagleel ak col waaye weer la woo xam ni yàlla rek moo mën a am boroom alal ji ak fàqiir bi añ jot ñoom ñaar ñëpp xiif kenn sañ naan kenn sañ ta lekk kenn sañ te yàlla rek moo ko sañ moo ko mën a def ñu def ko te coow coow jibul kon képp ku jullit danga ko war a waajal ci weer wi nga xam ne alayhi salaam bañ ko laajee majhudaat yu am solo yim ci doon def ci ay eh, nawaafil waaye ci ay di ko woor ci lu bare bare bare bare dafa ni jëfi doomu aadama yi dañ dañ koy euh, exposé kanam suñu boroom ci weer wii bu bëgg nag buñ ci exposé ay jëfam di ko won di ko gaaral fekk mu ànd ak ay woor yu bari rawatina kooru gàtt nga rawatina kooru gàtt nga mbokk yi kon Shaban bu jigee dina ñëw ci laylatul maxfira gi da ci biir muy guddi njëggal muy bu weer wi xaajee li ñuy wax nisfu saabaan te ci lañ amoon euh, walbati kaaba gi ñuy jublu baytul muharram baytulaayil muharram guddi googu nag dinañ ci ñëw insha allahu waaye bëccëg boobu nga xam ni moom it yoonu murit am nañ ci ab fàttaliku fàttaliku bu jëm ci ci la Cheikh Ahmadou Bamba gën a sax naam waaye ci la ñibbisi la lajee ak kim dénkal njaboot gi ca ndar woolu ko Cerno Birahim Sëriñ Fàllu toxal ko indi ko ci bis boobu euh, Chaabaan nag kon day weer woo xam ni ci la ñuy daal di note mbooleem ñi nga xam ni dañuy dund at mi ba mu jeex ak ñi nga xëy duñ ko dund ba mu jeex ñi ciy faatu ci la ñuy séddale yu baree baree baree bari boroom xam ni comme niñ ko waxee waaw bokk na ci bis yi yi nga xam ne weer yi nga xam ni baax naa woor boo tegee ramadaan fële hadis abu nasri bi an waalidi ci isnaad boo xam ne an saabit la an anas radiallahu anhu nee na laaj nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko ah, ah, an afdali siyaami qaala siyaamu saabaana taadiman li ramadaana dañ ko ni gan koor moo gën mu ni xanaa woor weeru baraxlu ngir di ko màggale di ko gàttandoo ramadaan allahu akbar seet tët tët wax ji neex na gis nga ko ndax bañ ko laajee maj udaat yu bari yi bokk na ci la mu waxan moom aleyhi salaatu wasalaam nee dafa seetlu weer yi ñu bari dañ ci sàggan dañuy sàggan ci weer wi nga xam ne moo loolu nag yomb naa dégg léegi ndax man gis naa fii gis naa fii ñoo xam ni ñoom ñoom dañuy accélérer po bi samedi yi mujj ci koor gi sës ci koor gi ndax nee nañ dinañ toog weer woo xam ne boîte yi dañuy tëj nga xam ne kooko bu boîte yi doon am ci koor gi jàpp naa ne dina am ay mboojeen yu dem ah waaye mboojeen yi kat lu ma leen yab-yab ñoom dem boîte ñoom xamuñu ko moom mboojeen yi moom ah, ñoom xamuñu yooyu moom xanaa kay ma seet ah yeneen ceddo yi bokk ci ci ci sama mbokk yooyu ala kulli xaalin kon kiy accéléré am poom eh, ndax weeru koor mooy bëgg ñëw te weer woowu bisimilah jàmm alayhi salaam moom daa ko waajal ay koor yu bari ndax sàggan gi ci nit ñi sàggan gis nga alisu abdullahi bi radiallahu anhu nee na alayhi salaam moo waxal boppam ni ku wooru eh, aaxiru yow mu uthnayni min saabaana xufira la yaani axiru ibnayni fiihi waaye laa axiru yowmi min saarin li an istiqbaala saara <coughs> bil yowmi wal yowmayni fiihi <coughs> ngeen baal ma nee na li ma bëgg wax mooy lislaam dafa wax ni képp koo xam ni woor na altine ji mujj ci weeru baraxlu ñu jéggal ko boroom téere ba nag moo ni li ma ci jublu mooy euh, al altine ji mujj lañ wax waaye waxuñu bis bi mujj ci ramadaan bi mujj ci baraxlu ndax bis bi mujj ci baraxlu léegi dañuy sib dañuy tere nga bañ ko woor muy jokkaloo ak koor gi ñoo bëgg ñaari fan yooyu nga bañ ko woor ba bu koor gi ñëwee nga xam ni koor ñëw na waxtu jot na salaamaaleykum wa rahmatullah